waa comme bu ñoo ci lambo and encore may ñaanal Balla Gaye pour mu am ndam mais pour ci kanam ci combat moom Balla Gaye and Boy Niang euh, Boy euh, Balla Gaye dina gagné Boy Niang dina ko gaañ. way yow loolu sa combat boobu sax du yàgg du jërë temps bu bëri. combat bu ñëwagul nga ni Balla Gaye Boy Niang. Balla Gaye Boy Niang su ñoom ñaari bëri cinquante fois Balla dina ko daanal cinquante fois bu leer laa la wax. Prince du da dëkk géejawaay waay non non loolu du question géejawaay loolu question xam-xam am mystique am vision bu leer. ayca kon ñëwal ci Balla Gaye Bombardier moo jiitu. Balla Gaye Bombardier Balla Gaye dinaa daanu Bombardier. déet Prince. dëgg nga ma bu baax. damaa jël ndokk ci sama géeme. combat bi lu des bëri motu. Balla Gaye de dina daan Bombardier. vaar bi ñeen dina ko dégg. Prince di nga dem vaar de. yow xanaa man damaa ragal vaar. man bala man wax dama ko dama ko xoor bu baax. nan la ko Balla Gaye di daane. de victoire rek. victoire victoire la. lu mu daana sama yan ne ko ci. lu may wax yow mooy victoire.